wax nañ ko. Mm. question dialogue national bi mais écoute euh, wax nga ko am na ko titré ne xawma prétexte pour xawma laa la ça pose problème. Mm. les gens nous disent ah parce que koor gi lay tombeel <laughs> loolu mooy loolu si expose des motifs. en oubliant que suñu dañoo waroon voter le février. Mm. mais février koor la woon. ci période bi bien sûr euh, on nous dit daaka on nous dit euh, fête religieuse y a tellement de fêtes. Korité Korité Tabaski alors que Sénégal mais permanence dañuy dund ay fête yu bëri sax mais pire date bi ñu jàpp ils oublient une chose man waxoon naa ko ca 23 juin 2011 bi ma demee ca man tamit ci ci mbedd bi mhm. nit ñi di xeex naan dañuy jàllale loi bi duñ ko jàllale am sa benn mbokk journaliste ma tàkk tekkal micro mu ne ko est-ce que xam ngeen ni bis bii mooy bisu CFE donc ñi woote loi bi ak ñi koy nar a rejeté yëpp ñoom ñaar ñëpp amuñu benn yitte ci xale yi nga xam ni. ci xale yi mooy seen premier exemple. Mhm. ils ne voient e woon jour CFE la donc bi ma waxee mais journaliste ba que jamono jooju wax bi du loolu il fallait juste que ñu def truc pour génne fii dañu dañu retirer son micro. Ah, mais tey lan la ñuy wax le deux juin. mais le 2 juin du xam ngeen ni moom mooy période examen ak période évaluation finale yi. Mhm. donc bu ñuy seet bu nekkee dañ doon jël rek prétexte pour prétexte. acteur de l'éducation xale yi nga xam ne ñoom ñooy un sénégalais sur deux ñoom ñëpp ñu nekk scolaire ñoom le 2 juin. bu ñu sañoon coow li am ci élection du fi am. du fi am kon nag defoom ko avant mooy période bii. Mm. bi président wax moom mooy li gën. Mm. donc donc pour dire que nar nañ dem ba 2 juin ñu ñu mënatul nekk. ndax école dañuy def examen te centre. d'examen mooy centre de vote yi donc le 2 juin boo ko si def. mooy mois de mai yëpp yaa ngi nekk ci campagne ci pré campagne 2 juin dana la yóbbu encore ba juillet fan la ñuy soxla école la ñuy soxla euh, coow li bëri. peut-être que les les les politiciens vont nous dire loolu c'est mineur mën nañoo xepp xale yi seen yitte mais ni ñu jëlee yitte ci événement yi nar a am yëpp calé date bi sur cette base là ça veut dire que suñu doon def prétexte par prétexte jamais du am élection parce que chaque jour ou chaque mois am na lu war a tax nga mën a acteur jóg hmm. wala événement jóg ñu lu élection ñun daal li ñu jàpp foofu aussi dafay dañ koy ñaanal président xëy na Birame va nous dire que moom tam gëmu ko mais nañu nañu enclenché élection présidentielle bi ñu génn ci ci fii ak benn ci dernier dimanche mois de mars bi ñu organiser élection bi xam nga les gens sont de l'organiser mm-hmm. parce que dañu am yeneen yitte yoo xam moom xaar dañu am yeneen yitte ñu war a def te tey tant que yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy jël temps pour organiser ko crise bi ñuy am insécurité bi li dal suñu jigéen yooyu yëpp dañ ko da di am je vous assure que hypothèse pour hypothèse pour ñun bu ñu organiser woon élection yi xëy na sax li li ñu li ñu jublu ci amnistie mooy apaisement da ko ci am. li ñuy wax ci insécurité bu ñuy am day dal. parce que élection bi au contraire dafay dalloo réew mi donc bu fekkee ni yow sa objectif mooy ngay indi apaisement jàpp nañ ni dem ci élection bi et en finir dafa am solo parce que boo ci deful. Hmm. boo jëlee éducation par exemple. mais non est-ce que réew mi am am na gouvernement présentement ñun defuñu séminaire de rentrée. ah bon déedéet amul séminaire de rentrée revue sectorielle lañ ko doon préparé pour waxtaan ci biirum jàng beeg jàngale yaa ngi doon déglu. ci vacances yi passées euh, ministre nañu dañuy dem ci loolu ñu tuddee réforme curriculaire mhm. jubóo woon nañ ci léegi est-ce que dëggati nga ñuy waxtaan ci affaire réforme yi mooy ndax langue yi dañuy dugg lan la ñuy jàngale dul amatuñ jot bi est-ce que euh, dialogue bi war a am sectoriel entre acteurs yi ak ministère est-ce que moo ngi am période bi est-ce que les questions à enjeu tey boo demee ba nga xam ne sa école bu amee crise nga jël allumette taal ko sax mu tàkk c'est parce que école yi ay abri provisoire bu nekkee ñax. Mhm. yàq ko day yomb. bu amul mur de clôture saay saay dugg fa day yomb. Mhm. mais ces questions là est-ce que am nañ temps pour wax ko. Mhm.